Mana wer bi ñu nekk ni période bawal la fim tol ni fekk na bawal bol yep samp touru sangu galaxndiku def lepp moy wer wi ñu nekk weeru wer bi dafa doy war te mon preuve rek lay wax tok len di setan rek tok len di setan kuma gem te topp ma doo sa xaliss ku ma gëm te topp ma non bu ngoon jotee bu dix dix huit heures jotee bu dix neuf heures vingt heures jotee di nga ma neexal faaw di ma woo neexal ma faaw di nga woo. woo marade neexal ko xam ne marade du du simple simple ma. billaahi je ne suis waaw simple ma. barke Seydina Mohamed. Ah? bu ngoon jotee di ngeen ma woo man maa wax loolu. li may wax fu leer laa ko teg man waxantuwuma waaw laa waxantuwuma de waaw léegi nag maire gars yi tapoté leen live bi waaw tapoté leen live bi rek yéen tapoté leen bu baax kii maire bi xàmmee ngeen ko maire Salbé kii mooy yaayi aada moom kii mooy maire Salbé waaw ki sàcc la triant la xam nga li tax ndax Sadio Ndiaye bi muy yëkkati xaalisam di ko jox kii nga xamante ne moom mooy Adamo Bos de Negri Capo comme ni mu koy waxee tur boobu te Adamu mi ngi tudd Tala Silla yaayam dafa bokkoon ci ñi ko garanti Tala Dieng ma naan Talla rek Tala Dieng la Adamu tudd Tala Dieng mook yaayam ñoo bokk benn baay aadamoo ak yaay ji ñoo bokk benn baay ñoom ñaar ñoom ñaar a bokk benn yaay benn baay Talla Dieng ñu koy wax alliance aadamoo Capo Boss de Négri bi koy saajo Ndiaye di yëkkati huit millions di ko jox garanti yaayam la parce que saajo gaynde da daan fréquenté kër ñoom Adamo Boss de Négri jamono limi Simbu dan fa fek magam ju ñuy wax Ibrahima Ibrahima jagn moy magu tala jagn alliance Capo Bos de Negri Adamo bobu Adamo goné la mi ngi bàggante Dakar ak digënté Pikine Sadio dan fa dal dan nek sen kër luga léegi bi mu démé Europe Sadio da doon yobbu ay nit mom Sadio da yóbbu ay nit jëlee la Sénégal dugal la Europe yàgg na ko def mais da ngay toll jamono boo xamante ni say mbir day kalaate Sadio dajale xaalisu jàmbur xaalisu doomam bu ñuy wax fiis de Sadio fils de Sadio moom mooy doomu saajo fils de Sadio kooku mooy doomu Sadio fils de Sadio yëkkati 3 millions 500. jox ko kii di Sadio Gaynde doomam la de mais Sadio du Sadio moo ko fayal paas moom moo yëkkati trois millions cinq cent jox ko saajo parce que Adamo nee na leen danaa leen yóbbu Adamo wax na leen ne danaa leen yóbbu te ñoom dañ koy gëm parce que ñoom xam nañ seen kër fële ci Louga ñoom rek xam yaayam te boobu yaayam mi ngi Sénégal te boobu yaayam mi ngi senegal ñu jox ko huit million francs CFA di ko dugalal par seen euh, Europe seen seen transfert yooyu xam nga Europe am na yeneen transfert yu bokkul ak waaw salaamaaleykum fils de Sadio fils de Sadio nuyu naa la maa ngi lay ziar baax Badara sëñ Badara Kéemaan dama nekk en direct live waaw maa ngi nii en direct live woo naa sa papa Sadio. Euh, déggante nañ ci fajar moom nee na dina dugg parce que dañ joxante woon rendez-vous tey 14h 14h 15h xam naa balaa live bee jeex incha allah rabi dina dugg maanaam sa procès bi yow ak Adamo Bos de Negri Capo man dan ma waxoon ne jot nañ la jox fan yii lay 400000 joxaat nañ la xawma ñaata ci xaalis maanaam mel na ni yow li nga joxe woon 3 millions 500 yi li ci def bëriwul. waaw gaa yi gaa yaa ngi lay dégg nga boo mënee yokk kàddu bi ak ak bruit bi da nga xaw a am bruit fi nga nekk. da nga xaw a am bruit fi nga nekk noonu. waaw. waaw boo mënee leeral maanaam ndax jot na la jox fi mu toll yi li la deseel bëri na wala bëriwul. femme bi. waaw. waaw ñu ngi may jox. ah actuellement yaa ngi encaissé yow. ñu ngi may fay waaw. yaa ngi toll kon kon léegi léegi sa xaalis mat yow sa 3 millions cent waaw ñu ngi may fay sama xaalis. ñu ngi lay fay sa xaalis. ñu ngi may fay waaw ñu may fay sama xaalis. ñu ngi lay fay kon daal fi mu toll nii di nga xaar léegi ni du yàgg nga jot sa xaalis complet. waaw mu ngi mu ngi jox daal te lu mu wax mu ngi koy respecté tamit boobu léegi lu lu mu wax. waaw su ne ma jour sangam dinaa la envoyé jour sangam bu jotee waaw dama bëgg nag ñi may ñi may laay fa ndool ñu seetaan ma xam nga kaa boobu man nañ ko joxoon Sadio njaay gaynde moo ma contacté mooy papaay kii mi doon simbi jox ma kaa bi ma kaawee kaa bi aadamoo ak ndaw si mu àndal dan ma woo ci suuf ne ma dinañ ko régler dinañ fay bor bi man daal yooyu yëpp sama yoon nekk. waaw sama yoon ci lu mu nekk mooy. waaw joxoon naa ko sama xaaj mu ngi may fay sama xaaj lu mu waxante man koy def. alhamdulilah rabbil alamin waaw noonu li ma bëgg a leeral li ma bëgg leeral mooy que ne kaa bi man maa ko kaa ba tax yéen ngeen mën di commencé jot seen xaalis waaye femme bi dañuy jox suñu xaalis mooy kaaw ak nga bañ a kaaw hmm. ñoo ko jox mu lew ñu doom ñoo ko liggéey kaaw ak bañ a kaaw ak yëpp dañuy jox suñu xaalis ah waaw ah fils de Sadio yaa ma woo de naan ma jàpp ci dafa coupé gis nga ko de war baaxut jàmm la parce que mu ngi jot xaalisam waxoon naa leen ko newoon naa leen ne sénégalais moo ngi nii maanaam bu amul dara da nga koy jàppale mais bu amee dara bu xasee am dara jeex na. en fait ñoom ñoo ma woo jox ma kaabi bi ñu ngi leen di fay mais man kaa waa saajo da nga waa sama kii bee da dama ne. yow kaa bi ma ko kaayee ba mu daj àdduna wérngel képp. yow mi nga woo ma expliqué ma femme bi woo ma expliqué ma yow mi bi nga bi nga méré man mi maa la woo ne la dinañ la fay sa xaliss loolu amna wala amul. waaw. te xam nga ba tay lajuma la ci junni lajuma sa papa junni parce que soxlo wumako ko. musuma laa woo tamit ne la jox ma 5000 wala jox ma 10000 wala fay ma dara. nga ne. dama né waaw. budé astuti la wax budé astuti bi ngeen jaaxlee ba jaaxle mënatoo leen am fu ngeen jëlee xaalis man maaraat di peuple man maa taal sama live kaakaa bi femme bi woo la dugalal la xaalis. lu mën a wax xanaa. waaw mais nit tamit day gore la wax dama ne nit day gore xam nga yow man awma sa numéro yow yaa ma woo sa papa woo ma. waaw man. lu ma ndaw ndaw kilifa laa te man nekku man seen yooyu noonu ngeen nekk nekku non dañ ne kilifa la suñu yii ñu nekk nii yow yaa ma woo contacté ma non déglu ma déglu ma non du la dégloo noonu dama ne du ma la dégloo noonu yow sa jëmi bopp yaa ma woo contacté ma sa baay woo ma contacté ma ngeen jooy ma seen cas ma toog fi leeral ko cas bi ñu ne ñoom nangam di leen fay non waxuñu waxi da reewante gay na fii kenn dépassé wu la dépassement amu fi déglu ma rek dama ne yow dañ la woo di la wax parce que li tax ñu lay woo yow yaa woote woon di wax sa kaa di wax sa problème né dan ma amel nangam nangam di victimiser wu man ma tal ci live bama ma la téléphone né la muñal muñal lundi inshallah rabbi né na dinañ la dugalal sa xaliss kon na bayyi ka bi mu sedd mais su la day wax lolu yow waxal merci mais yow waxoo ma merci ma ngi lay wo di wax nga nan mo no ka ak makka ka yépp no damay jot sama xaliss mais dama né nit da ngay non nit da ngay am nit no déglu ma bul def affaireu mbeurul lamb yoy nit da ngay am reconnaissance wa mais gaynde kon bu boobaa loo tax nga may wo yow non su boobaa lan mo tax nga may wo wa ah déggu ma man ma xaar nga jox ma xaalis. waaw yow mos naa laa woo ne la ne la ne la ne la nangam. lan nga ma wax yow. yow non dama laaj yow man ma man ma xaar nga jox ma yow su ma la doon xaar nga jox ma xaalis dama yëkkati sama téléphone woo la. te yow même su ma xaarul sax nga jox ma xaalis yow xanaa war ngaa mën a sax yëkkati ne ah mara di peuple am mais man soxlawuma ko. soxlawuma ko lijjantiwuma ko. mais boy yow gore di nga de boy yow ndeke lu la def yow dagan ndeke yow. non diglu ma rek boy bor bi jeexagut waa d'accord sama yoon nag ci eh, bor bi déglu ma rek bor bi jeexagut xaw ma aadama moo la woo xaw ma mu demee noonu xaw ma aadama moo la woo kappa moo la woo comme yow kappa nga gën a dégganteel waa déglu ma rek eh, yow naa la déglu ma waay booy man du la déglu yow yaa may déglu parce que man maa la woo eh, bu la tollee noonu nga woo ma waa déglu ma rek bu dee aadamoo moo la woo bëgg a defee nii daanu nga nelaw nga parce que yow ba ngay jëflanteeg aadamoo ba nga amee problème man nga woo sa baay man la woo ma lijjanti leen problème bi mu commencé leen a fay léegi ñu mu leen commencé fay ba bor bi commencé jeex ma lay woo ngay jàmm te yow bu ma lekkoon sa dara sax ñu mën a wax yow bu fekkoon yow jox nga ma junni sax yow bu fekkoon jox nga ma junni nga naan ma ngay toog fi naan ma non yaa ngi doon xaar ma jox la dara mais man su ma dee xaar nga jox ma dara maa lay woo téléphone man maa yëkkati sama téléphone ne la booy nga naa man la sama wàll mais yow musuma la wo nga nan ma yaangi tok di xaar ma jox la mais bo yow bo yow bo yow li dina la dalat de wuy ma 3500 millions leneen dina la dalat barke alxuraanul karim kuy war daw ba ren mujjig la mujjig la da fek dañ la koy jig barke Seydina Muhammad xam nga dama wuy ma xam nga musuma la wo non déglu ma man musuma la wo woo soxlawuma laa wo bi nga amé sa xaliss xaalis woowuma la ya yay coupé xam na ne kapo ko wo boso ko wo ne ko non nangam ak nangam mais dama ne gay mom bimu amé problème bayam am problème. wowuñu keneen marade du peuple la seen xel daj ma taal sama live dem ci press bi moom mii woo naa ko appel dugal ko en direct ci télé woo naa ko appel en direct yàgg koo dugal ci live mu wax ba ne xaw nangam ak nangam non yow koy sëñ bi yàllaa lay fay noo nii nangam kërëb kërëb ma ne waa d'accord amul problème yàlla dogal bi ma kaawee kaa bi réew mi yëngatu àdduna yëngatu ñoom aadamoo ak femme bi ñu commencé yëkkati seen xaalis di fay di fay di fay barke alxuraanu bi sénégalais laa lay wax ne musuñoo yëkkati seen téléphone ne ma mara di peuple jërëjëf deuxièmement musuñoo yëkkati seen téléphone ne ma mara di peuple am cinq mille ngi nii nan ko ndox déedéet barke alxuraanu karim man it musuma koo def soxla soxlawuma ko dégg nga li mu wax nee na maa ngi doon xaar nga jox ma dara wax d'accord yow même nit ki boo xamee ne kii kat mi ngi doon xaar nga jox ko dara moo dem ba wax ko xanaa koy kon waroon ngaa am xelu sax ne xaaral noo kii xaaral ma jox ko 2000 parce que bu toon moom du police du gendarmerie mara di peuple moo tax kaa bi yëngatu ma yëngal kaa bi ñu commencé fay. bi ma yëngal cas bi léegi nag bi nee na yëngal cas ak ñàkk yëngal cas yëpp dañuy fay dégg nga mbëru làmb yi ñu ci bëri ay workat daan lii moo tax lu leen def ndeke dagan na léeg-léeg nga gis nit di ko yërëm ndeke lu mu ko def dagan na. am na ku fi amee nit xaalis benn femme am na ñu may seetaan barke Seydina Mohamed ma lijjanti kaa bi journée. femme bi cent mille lañ ko waroon a fay fii laa toog lijjanti kaa bi réew mi yëngu Pascal bu Wally Seck moo njëkk dugal cent mille am beneen waay bu dugal nekk Amérique dugal cent mille muy deux cent mille gel bi cent mille lañ ko amee dégg leen bu baax sénégalais man may wax ak yéen te gel ma taal sama live yuuxu aalu réew mi yëngu mbokk waa ji yëg ko ay am di jàmm mi bi ñu ko yëgee ci saa si dañoo dugg ci live bi Pascal la njëkk a dugal cent mille francs Pascal la may dégg barke Seydina Mohamed dugal mille francs beneen waay ju nekk Amérique dugal 100000 francs bi mu dugalee ndaw si sa xaalisam ndaw si ba léegi woowu ma ne ma merci ndaw si ba léegi woowu ma barke alxuraanu karim ne ma merci déggoo ma waaye man it damaa gore man du ma la woo ci yooyu parce que ëllëg laay bañ coow li jug nga naan non sawaay pourtant fii nga nekkoon kii tey jii su fekkoon dama koy woo naan ko sawaay jox ma dara mais nii la koy waxee mënu ma ci dara nii la koy waxee devant mille personnes devant 1000 personnes ni la koy waxe nan pourtant yow don nga ma woon nan ma jox ma dara parce que sayyidina Mohamed ni la koy da nan yow mara di peuple wo nga ma nan ma jox ma dara dama xam sénégalais xam ni may jëflanté ak ñom amna ci cas yo xamantene man maa koy lijjanti dama koy def te yalla tax parce que ni nit ki di ñëwé ci yow la day ñëw victimiser wu non man kay saway non nangam ak nangam yow yalla la yalla fay da nga bax ci réew mi mais bu mu xasee encaissé non dootu leen dégg te man duma la wo man duma wote ci yoy ay nit encaissé na xaalis léegi ni noonu ma ci jéem a man duma def lolu barka alquran karim duma def lolu dama wo papa ji papa ji lay woni Sadio xaram Thank you. xaar leen rek gars yi ma leen def bi tapote leen tapote leen rek mhm. tapote leen gars yi ah. ah bon rek. wax nga dëgg wax nga dëgg mais garaaw du weesu am problème am problème du weesu yow ñoo far ci kanam léegi gars yi tapote leen live bi tapote leen gars yi tapote leen rek waaw gars yi tapote leen ma live bi ma leeral kaa bi ba mu leer dama ne booy bi euh, moo nekk Lonko Adamo parce que bi kaa bi amee audio yaa ngi fii booy bi dane dafa doon saaga papaam lii mu ma lii mu wax nii déedéet daf ci moom la nekk de booy bi saaga na papam saajo ndax xaalis bi 3 millions 500 yi parce que Sadio Ndiaye moo yëkkati 3 millions 500 jox ko kii di adamoo ak femme bi bi loolu amee booy bi war a tukki tukkiwul audio yi nga xamante ne moom la doon def di ko envoyé Adamo Adamo nekk ci digg bi ñu koy envoyé Sadio muy saaga Sadio barke alxuraanu karim te doomam la de c'est fils de Sadio parce que booy bi yàgg na Sénégal demut. moom ay frère am ñëpp dem nan ay sœur am dem nan mais doo comprendre moom digganteem ak Sadio lan la parce que moom xaalisa boppam moom moo ko liggéey moo ko jox kii di Adamo moom papam yóbbuwu ko de wax naa ko sànq ci leeral gi déedéet papam yóbbuwu ko Europe saajo Gaynde te ku xam saajo xam ne saajo yàgg naa tukki saajo ba mu dalay tukki du tey yàgg naa tukki yàgg naa yóbbu ay nit mais moo booy bi yaa problème parce que musul musul wax yóbbu booy bi mais booy bi ci boppam booy bi ma doon waxal fils de Sadio moo yor 3 millions 500 moom ci wàllu boppam yu moom joxoon ko papaam pour papaam jox ko Adamo ak ndaw si pour ñu yóbbu leen nii la kaa bi demee léegi bi demee ba loolu amul nag booy bi dafa doon victime wu sew di venger wu jàpp ne comme moo papaam am na fu nu jaar ay rancune nan neexawuñu ñoom ñaar parce que papaam yóbbu na ay rakam yóbbu ay ay ay ay yeneen frère am ah ci kër gi te moom loolu lépp mi koy gis donc loolu métti na ko 3 millions 500 yi mu moom mu liggéey ko boppam jox ko papaam papaam mënu ko cee yóbbu moom day jàpp ne moo nekk ci mbir mi. mu woo Adamo di ko envoyé ay audio di saaga papaam parce que loolu man bi coow li amee laa ko xam ndax bi coow li amee bi ma Sadio Gaynde wooyee moom mu woo ma Adamo ci boppam moo ma transfert audio yi wan na ma wan na ma kii wan na ma wan na ma kii oh, maa ngi liggéey waay bi affaire bobu amé 3 millions 3 euh, millions 500 yi mu joxe saaga na ci Sadio mom boy bi fils de Sadio mi nga xamante moy bayam xawma moy tawam wala lumu don ci domam envoyé na ko ay message di menacé papam saajo di ko saaga dem féeteeg Adamo parce que boobu Adamo gëmloo na ne ko yow dama lay yóbbu yow dangay dem dem Adamo gëmloo na ko yow sa xaalis danga koy jot mais bi nu demee ñoom ba jaaxle ba tiit amatuñu moyen bu nu wooyee Adamo duñ ko jot buñ ko messager du leen tontu mu bloqué leen fépp ba pare di leen menacé ñoom mën nan woo maradi peuple neewu leen nag fay leen ma junni wala fay leen ma cinq cent mille wala cent mille déedéet dañu ñëw jooytuma seen problème ma yërëm leen taal sama live yuuxu àddina dagg ko aadamoo dugg ci live bi assuré na dina fay ba cinq cent euros yi nga xamante ne moom la ko Sadio lebaloon boobu dafa laaj saajo daal ne Sadio ak jox ma sa numéro téléphone bi nga xamante ne mooy def transfert ma envoyé la ci xaalis bi 500 euros yi léegi 500 euros yooyu Sadio Gaye nee na ba léegi jotu ko 500 euros yi Sadio Gaye nee na ba léegi jotul 500 euros yi barke alxuraanu cinq 500 euros yi nee na ba léegi jotu ko 8 millions yi tamit ba ma ca laay fee jour boobu nanu commencé fay lundi ma ma woo booy bi xaw ma booy bee ma woo ñu waxtaan ma ne ko muñal ko bul yëngatu. lundi incha allah di nga jot sa xaalis lundi ñu dugalal ko 400000 booy bi lekk man maraat di peuple sama dignité non laajuma ko si dara néew ma ko jox ma ndox néew ma ko dara moom it joxu ma dara lijjantiw ma dégg nga li mu wax ci téléphone bi nee na yaa ngi doon xaar ma jox la waaye yow ci ku la lijjantil kaa yow nga dem ba toog am conscience su naan nit ki yaa ngi doon xaar ma jox la dégg nga wor fi muy tàmbalee dégg nga. motax neke nit amna ño xamne lu len way def dagan na barki Seydina Muhammad gis ngeen motax man yenn khalis yi ko gisee no amna na yo xam dina door ko dagan na barki alxuraanu karim amna khalis yo xam dina door ko dagan na parce que ñi du lay ñu bax parce que ki bu yoree ba do la day war day jamm na moom commencé na angé sa khalis mara di bi nga xam dina mo moo ko Senegal, ba mu jot khalis mu nek senegal adamo nek Allemagne dama len laaj xam nga police amu fi Allemagne booy bi mi ngi Sénégal de fils sa Sadio mi ngi Sénégal Adamo mi ngi Allemagne Adamo bu lekkee xaalisam fan la ko mën a jotee moog femme bi ñu ko jot moog Sadio mënuñu ko jot parce que Sadio mi ngi Italie mënta gis Adamo biir Allemagne mais mën nan yaakaar parce que jàpp na ne bu ma yuuxoo ay mbokki Adamo doon ko yëg ay mbokku jabar ji nangam dinañ ko yëg ma yuuxu bi ma saleeroo noonu la demee seeni mbokk ñoom ñëpp yëg ko ku ne woote nit ku ne woona ma suur boobu ni bayil mu set dañuy fay mu ne wa d'accord wo boy wo bi Sadio ne ko muñal len lendi barke alcorane karim ne la léegi muñal len lendi lendi ñu jox la sa xaalis motax mo ne booy bi warkat la parce que mënon na waxe ne na ah maradi bobul kat wax deug yalla bu mu jappon nga ci te ba nëgëni si ñu la deureum te laajoo ñu deureum waaye yaangi ngi doon xaar ñu jox la de nga boy bi yaangi xaar ñu jox la wa dama dama la koy delo duma la ko delo nit di nga ko jox ci lu ci lu lew mu la koy delo parce que lu lew la ndax dama ñëw jàppale la ba nga jot sa yëf tegalu la benn sart xam nga diine lislaam li muy bañ mooy sart tegalu ma la sart de laaju ma la ne boo ko jëlee jox ma nangam jox ma déedéet loolu laaju ma la ko su ma la ko laajoon tey ji booy bi dafa koy wax fi da ngay dégg kon mu ne sawaay bi moo waree lijjantil kaa bi dane woon jox danga may jox nangam léegi jot naa xaalis bi dóor naa ko mais man du ma doxee noonu ak yéen parce que dama xam ne ay baadoo la ngeen parce que dama xam ne yéen li ngeen yor Dalena jom man jom mo tax umu problème bobu man dafa am ñu may wax ñu may jëflanteel ci walum teranga am ñoo xamne duma du ñom jëflanteeg ci wàllum teraanga ko ñom parce que duñ sama nawle ci côté bobu ci teranga jojo dede duñ sama nawle amna na ci ñoo xamanteni ni amuñu problème ay nit nañ mais am na ci ñoo xamne ay baadu ñoo li ñu yor dalena jom li ñu yor dalena jom ba nga xamanteni man ma sa dërëm duma la laaj dara duma la ko laaj duma la ñaan duma la abbu man mara di pop kuma xam ci rew mi xam ne noonu lay doxé man duma ñaan dédé duma def lolu ñepp xam nañ ma ci lolu amul sama benn contact téléphone mu musla sama téléphone wo la ne la noo sawaay alors dédé man so mo day wo ba woto ma sax dotuma la wo man fulla man damay sisu damay defante wa man so mo day wo ba woto ma sax noonu ma la dédé parce que damay xam ne am yalla yalla am yalla yàlla bur ñak yalla yalla yàllaay Wow, yow yaa doon ñëw ci man di ma lijjanti dem ba toog ba yàgg lijjanteetu ma non amul problème ini dama dama dama lay sant di la gërëm sax du ma la wax lu ñaaw du la taf du ma xam sax ku wax ci yow lu ñaaw wala lu bon ku ko def dootoo ko defati déedéet dama lay def ni nga ma def dama lay multiplier nga multiplier ma boo demee ba amaat sama envie ñëw nga daal di ñëw amul problème ñu waxtaanee ko man boo ñëwee du ma jànni kenn man du ma kenn fii ku bëgg a da ngay ñëw maraati di du jànni kenn du toroxal kenn kenn du jógee ci man nan ma li mara peuple def ak nangam loolu mom say wax bop lay don yow yow lay yow lay yow yow lay engager mais man duma engager parce que man duma ci wax amul sama ben xarit ci tiktok bi ñu mësa a déggante téléphone ma naan la diw nangam wala diw nangam déedéet man maraati boobu du jëw nak yeen ni may sétane amna lu jafé barke Seydina Mohamed maraati boobu du jëw de déedéet ma gis nii ci kaw rek li ma ci réseau yi ni ak li nekk ci ben amul sama ben xarit ñom ning ngi may sétane parce que ñii gars yi ñu ngi lay ñu am na ñoo xam ne ñu ci fenêtre am na ñoo xam ne ñu ci porte yi taxaw di seetaan xam na bu baax li may wax amul kenn ku ma ci mës a bokk ndol genn jataay ñu toog ma naan la diw nangam diw nangam déedéet amul man samay kaawu bopp sax kaa yi may kaa buñ ma ko xasee jox ba ma lijjanti ko ba xool nii teg naa ko pare naa ci du ma ci waxtaan ak ma Demba ci waxtaan ak ma Semba man maay ñëw toog taal réglé ko su ma paree fay naa fay naa jeex na amul kenn ku may réglé ndol ci suuf déedéet man doxee ma noonu moo tax waxal ma ay bal yomb taxaw waxal ma ay bal génne preuve tek non du yomb mën ngaa wax yow la engagé mais doo génne preuve mukk ne non maradi du peuple nii nangam déedéet loolu daam amul sama benn xarit bu la ko mën a wax nit ñi nga dañuy wax moom sénégalais yi kenn mun leen tere wax di nga gis gu ñëw taxaw ne la non sa waay kay moom day déconné non sa waay kay nangam ak nangam sa waay kay lii ak lii moo tax ma lii ak lii moo tax ma bàyyi ko nangam ak nangam sénégalais mooy doxee noonu mais man ku ma mës a xam ci coow nga ma mës a xamee ku ma mës a bëgg di ma jox sa teraanga ci coow nga ma xamee ay saagay ndey ay wax ju ñaaw ci mah nga ma xamé lool nga bëggé daan ma jox sa di jox sa teranga kon kay man changé wu ma wala boog bu ma changé fi mu toll damaa baax sax parce que ñepp xam na ne saaga yi yëpp adu mo fani taf di saga ndayam ak yaayam ji parce que ay doomi xaj nan moo sal Sall mais man ay saaga yëpp banaa ko man kay da nga dama soppé ko sax barke alxuraan karim ku xam ma tay xam ne mara di peuple ko no bu baaxa baaxa baax yoy baax yëpp banaa ko dama ko mais sénégalais yi mënoo leen tere wax faaw ñuy xëy di wax ñoom mais man du ma tontu duma ma tontu ba ngeen ma xamee ba léegi mosuma taal sama live di wax ci benn sama benn xarit wala sama benn wóolare du am te du ma am kenn mënu kenn mënu ma ko defloo ci ñoom nag léeg-léeg nga ñu cokkaas la tendance la.